boo xamante ni dina dinañ dem benn moment ba nga xamante ni kenn dootu ci am amati euh, benn mesure kenn mënatu ci jëlati benn solution mmh. alors ci manifestation yi également da ngay gis ni c'est pas seulement des sympathisants ou bien des militants de Ousmane Sonko da gis ñeneen ñu ci greffé wu lu ñuy wax toujours c'est ce genre de manifestation ci la euh, rek yenn euh, esprit aussi dugg commencer surchauffer ñeneen ñi et puis euh, ça va vraiment euh, voilà mu mu déferler wu mu daal di indi leneen loo xamante ni mhm. daal on doit pas vraiment encourager ça lu ci nit ti def aussi bien que ce soit les médias ak ñu mu mënti def ñu jël ñu jouer ci aussi un grand rôle rôle d'alerte rôle suivi <clears throat> surtout de sensibilisation. et de responsabilité de responsabilité. voilà si loolu lay embrayé mmh. bu fekkee suñu réalisateur mën nañu jëlal euh, suñu reporter yi nekk fële ca euh, section de recherche ñu euh, dugg jox ñu la situation le temps que ñuy def le dernier tour de table alors Alioune li Rama wax sànq ci foofu lay embrayé mooy CNRA. de ba couverture bi jaxee et tout ça si ngoon si ils ont sorti un communiqué pour parler de couverture irresponsable ils ont même cité des chaînes dont Walfadjri euh, donc ñu cité les trois sax d'ailleurs muy Walf 2STV ak euh, Sen TV cette posture de de de la du CNRA on a l'impression que ñoom ils ont euh, une conception plus répressive ou bien même trop répressive de leur mission alors que ñoom seen rôle mooy euh, rôle de régulation nan nga gisee euh, seen communiqué bi dem ak les termes durs yi ñu utiliser à l'endroit de la presse ridicule parce que euh, Walfadjri dafa war li xew ci réew mi li li li xew ci àdduna bi ci réew aw xam sax réew mais àdduna bi lépp lu fi xew sénégalais dañ ko war xam donc amuñu lu ñuy critiquer loolu parce que man gisuma ñoom la lan comme ni nga ko waxee mm. euh, répression rek moo leen moo moom moo tax a jóg amuñu leneen loo xam ne war nañ ko mën a def mais qu'est-ce que Walfadjri a fait finalement wane wane wane li xew ci dëkk wane nii li xew ci réew mi loolu kenn war ko warewul moom mm. comme war a nekk suñu liggéey mais kon finalement c'est c'est la la la mooy job bi toog di seetaan mais il faut nëpp nëppal quoi nëpp nëppal non déedéet non non je suis pas d'accord je suis pas d'accord et je trouve que c'est ridicule voilà maintenant après ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent. dëkk bi dina avance par force sénégalais dinañ xam li xew ci réew mi. dinañ ko xam cette menace de coupure de signal. qui qui plane également sur nous. mais Casamance Ziguinchor dañ coupé courant bi yëpp dans la matinée Ziguinchor dañu coupé courant yi pour gars yi bañ a seetaan télé c'est dégueulasse. Mm-hmm. Rama yeah, je pense que l'heure n'est pas aux menaces d'autant plus que Walf que ça soit Walf TV Sen TV ak 2S ce sont des personnes responsables ñoo fay liggéey des gens yoo xamante ne xam nañu ce qu'ils doivent faire euh, suivant l'éthique et la déontologie donc je pense que CNRA est passé à côté côté boobu vraiment il est passé à côté on s'attendait à autre chose mais pas ay ay menaces ou bien euh, retrait de signal également coupure de signal beeg loolu on se rappelle avec Abdou Karim Sall c'était la même chose ba mu jógee woon ñëw Walfadjri pour couper mais quoi on de la waaw on est de la RTP on est dans un pays démocratique la ñu wax donc il faudrait également que ñu bàyyi population ya y a des gens yoo xamante ni dañoo nekk au fin fond des des des des localités ñoo xamante ni mënuñoo am information bi mais attends Walf la ñuy dem déglu xool lan moo xamante ni moo xew te Walf li muy def mooy topp situation pas à pas ak reporter yi nekk te reporter yi nekk ci terrain bi amul lenn lu ñu inventé <laughs> nous également qui sommes sur les plateaux amul lenn lu ñuy lu dul di rapporter ce que vraiment les reporters ñoom la ñuy. avec filtre parce que lu bëri dañ ko filtrer. bien sûr voilà pour ne pas dire même autocensurer on s'autocensure souvent. parce que souvent ñu ngi say image yoo xam ni dañu naan lii c'est pas respectueux c'est pas responsable pour ñu pour ñu teg ko mais loolu tey ñun ñun les médias classiques bu ñu ko deful. mais les réseaux sociaux maintenant voilà vont vont continuer la difficulté. et foofu amul filtre amul dara. et justement réseaux sociaux yi la ñu war a wax mais pas les médias classiques yi nga xamante ni ils sont assez responsables quand ce qu'on voit ci réseaux sociaux c'est du n'importe quoi mais ana filtre boobu amul ce matin j'ai vu que ni ngi naan euh, ils vont mettre un comité de suivi pour euh, les réseaux sociaux et tout ça mais réseaux sociaux bi sax mënuñu am maîtrise ci réseaux sociaux c'est impossible donc ñu bëgg a cibler Walf Sen TV 2STV c'est vraiment euh, passé à côté ndax Sénéra on s'attendait à autre chose mais pas à ça ndax population yi tey jii amul kenn ku mën a wax ni Walfadjri de mi ngi yee fitna bien mi ngi encouragé ou bien mi ngi créer situation benn situation créé ko Bignona que ce soit également à Saint-Louis mhm. fii à Dakar ce sont des choses réelles yoo xam ne ñoom ci seen bopp également gis nañ ko xam nañu ne lii moo am mais pourquoi nag ñuy camoufler également li nga xamante ne moo nekk sur le terrain on ne le fera jamais ça on ne le fera jamais pour rien au monde. moi j'étais pas dans les dans les manifestations mais j'ai compris ak Walfadjri ci Walfadjri laa gisee ni ay nervi am na. bien sûr man ay nervi bu bu dul woon Walfadjri fu ma koy xamee. te nervi il a fallu. nervi yi il s'est sur sur le sur le terrain. mu décrire ñu ne ñu benn pick-up déjà Issa il était il a été prudent dafa ne mhm. benn pick-up li gis ay gourdin la ay mhm. pompe gaz extincteur il s'est rapproché moom nee na waa ji sax xàmmee na ko ba ne ko finalement ce sont les gars les nervis de les marrons comme on les appelle ñoom ñoo fa nekk mu bi ñoo wàcc ci population bi également yor seen gourdin de mater la population comment se fait-il que dans un état comme le Sénégal également il faut le dénoncer mhm. que des nervis je dirais des personnes euh, ces ces ces euh, bodyguards là substitue à la police alors que les forces de sécurité sont sur le terrain. Il est inadmissible. Qu'est-ce qu'il en pense le CNRA? Ah <laughs> Et surtout je pense que c'est même le contexte qui interpelle un peu à euh, l'une parce que tegle nañ fi trois ou quatre conseils des ministres yoo xam ni chaque mm. fois président day insister sur la nécessité de réguler les réseaux sociaux euh, bi passe beneen bi bu mujj sax mi ngi wax ci programme télé yi mm. ba gars